alaykum beaucoup internautes yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci suñ chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bi ndax lu ñu rek nga bokk ci di liker di commenter te di partager c'est très important mbokk aujourd'hui on va parler d'Iden Diop le frère de euh, de Soufiane Diop donc bi nga xamante ne nañ ci moom découverte et tout ça wax leen talent bi nekk ci aujourd'hui nag wax que il est temps euh, euh, course Demba Mbaye mu mu de koo démarche indi ko ci suñu petite catégorie pourquoi mo wax lolu parce que euh, mom déjà mi ci mi ci mi ngi ci mi ngi def talent moom di commencé prouver ci surtout ci petite catégorie yu yu France ci U19 c'est la première fois ci mois de novembre bi ñu woko mais vraiment prouvé notre talent parce que ci ci ci mois de novembre bi bi mu demee ci équipe U19 yu euh, France ci qualification Euro yi gis nañ mu wane boppam dugal 3 bi donc nga xam ne kii euh, ab milieu de terrain la mais capable na di dugal ay bi et tout ça. donc pour ñi ko xamagul déjà ma fàttali leen parce que man defoon naa ci moom découverte mais nag ñi seetaanagul vidéo bi mën nañoo dem ci scène bi ngeen seetaan ko euh, donc moom 18 ans la am comme ni ma koy wax rek c'est un gars talentueux très même parce que lim jotté ñu que frère donc euh, c'est un pur numéro 8, il est capable de casser les lignes euh, par ses courses ak ci euh, ay passam donc ba léegi pied droite bu neex la am pied droite bu neex la am c'est un redoutable tireur de coupé arrêté coupé arrêté yi dafay dóor et tout ça te loolu noonu danañu intéressé à l'avenir surtout ci équipe nationale bu A bi euh, donc moom dafa nekk booy boo xamante ne dafa osé man dama bëgg genre joueur yi nga xamante ne duñ complexe luñ bëgg ci terrain dañ koy def te moom ñoo noonu noonu la mel euh, heure bu amee espace rek moom dafay dóor heure boo xamante ne am na espace moom dafay tirer tenter chance am donc looloo waral euh, ci ci ci ci mois de novembre bi mu dugal 3 bi ak euh, équipe de France yi 19 euh, également ci progression moom tamit ba léegi ci ci match championnat yi 19 contre Paris Saint-Germain dafa demi-finale championnat la woon sax yi 19 donc mu nekk homme du match loolu tamit également ci progression wu Eden Diop ci la bokk donc je pense que ni. du yàgg loolu du yàgg dara mu ñëw Ligue 1 France ci première euh, première équipe bu bu bu Monaco parce que euh, li mu commencé wane nii je pense que ni euh, waa Monaco dinañ te dinañ ko indi ci équipe A bi en tout cas man li ma gis nii mooy que. c'est le moment des Mbaye man à wax Aliou Cissé parce que des Mbaye moo pour petite catégorie man fii ni commencé pour tabax suñu équipe A bi bu ñu une équipe A il faut ñu tabax une petite catégorie même si sax petite catégorie yi progresser, mais il faut ñu dem qui boy bi waxtaan ak moom andigo parce que frère am euh, instant bi moi loolu mom mom mom ci. Euh, ba léegi jëlagu décision ngir ñëw équipe nationale bu Sénégal wala France wala Monaco mais euh, rakk ji moom je pense que c' est le moment de Mbaye jëm koo dem convaincre que andi ko ci suñ euh, équipe A bi parce que il a des qualités il a il a du potentiel euh, pour pour pour ñëw fi et également xam naa sax peut-être dina xaw a jafe lool mais il faut il faut il faut mu jafe nag mais dañuy dañ ciy def lu dañ ciy def li nga xamante ne moo war ngir mu mën a ñëw. en tout cas lii laa leen andiloon wéy leen di ngeen jëf.